xale ko guyaar euh, te itam euh, dëgëral njaboot gi ba daal loolu noonu dal seen kaw ñu mën ko muñ euh, bu loolu yi tam di nuyu Georges di nuyu di nuyu tamit ala njóogu sama xarit bi <laughs> sapout bi <laughs> waaw donc di wax ni loolu ñun waa FRAPP dafa fekk ñu ànd ceeg yeneen kuréel yoo xamante ni mel ne Y'en a marre mel ne Africa Forum démb amaloon ci am ndaje ak taskatu xibaar yi ndaxte dafa am li nga xamante ni moom moo am jëm ci mbirum euh, bàyyile googu maanaam parrainage bi euh, tukkee ca euh, ndogal bi bañ ko jëlee ci atum deux mille dix huit ginnaaw bi at dese ci wotey fal fal njiitum réew mi. ñu taxawoon ñun lànk loolu noonu ba taxoon ñu amoon doon ci ay feeñu ci mairie Ndakaaru yi ngir bañ ñu wote loi boobu noonu fële ca assemblée nationale. Euh, ñu xëpp ni ci ay gaz lacrymogène ñeen ñu jàpp ci ci ñun ñu bëree bëree bari dóor ñu lu nekk euh, ba li nga xamante ñun moom lañ ci doon bañ moom moo ci mujj am ndaxte li ñu mujj am nekkul élection présidentielle waaye sélection présidentielle la ndaxte lu ëpp juróom-ñett fukki euh, nit ñoo la waxu woon maanaam candidaté woon te ginnaaw bi nga xamante ni segg nañ juróom rek lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci téye yuuxu yi bëri lool lool. muy dem di dem ba am euh, ab euh, kuréelu politique gu tudd USL euh, kii di Abdoulaye Tine jiite ko dugaloon fële ca cour de justice bu CEDEAO ab requête wax ne kat moom dafa bëgg lii nga xamante ni parrainage la day salfaañi li nga xam mooy sañ-sañ bi nga xamante ni bépp ma réew am na ko ngir doon candidat ci ay wote da kay salfaañi loolu pour ñu neenal ko. gannaaw bi wote yi jàllee yaakaar naa ne mi ngi ko dugaloon décembre 2018 te bi ñu demee ba 28 euh, euh, euh, avril 2021 bii di passé ci la CEDEAO génnee ab dogal dogal bi na kat loolu nga xamante ni dañ koo dugal ci loi électorale bu Sénégal muy parrainage bi 2018 dafay salfaañe li nga xamante ni moom mooy sañ-sañ bu sénégalais yi am ngir doon ay candidats ci ay ay wote Euh, wala yenn parti politique yi sañ-sañ bi ñu am ngir doon euh, euh, présenter ab candidat beneen bi itam mu ne dogal bi ne kat jox nañ ndigal kii di état bu Sénégal ngir loolu di parrainage bi mu génnee ko ci loi électorale bi beneen bi itam mu jox ko juróom benn weer yoo xamante ni ab app la bu mu ko jox na ko buñ ca àggee na nga ma jébbal lii di ab rapport bu wanee na mais tey bu fekkee ne bu fekkee ne parti yooyu wala kuréelu parti yooyu ñu ngi bëgg ñu dindi parrainage bi. est-ce que bu fekkee ne loolu am na du ñu yóbbu ci report élection législative yi. xam nga loolu. yaakaar naa parce que faw ñu dina ko ci loi électorale bi. loolu loolu loolu euh, Georges yaakaar naa ni ci Macky Sall la euh, aju moom mi nga xamante ni moom moo yor cëgal gu yam te nga xamante ni lii di CEDEAO ay dogalam dafa tiim li nga xamante moom mooy àttey réew mi yaakaar naa ni ci loolu la sukkandiku moom ba euh, bodde bi ñu boddi Mali. Euh, li fi mu sukkandiku moom mooy dogal bu CEDEAO jël mënoo jël nag ci lii bàyyi ci la la nële di xool di la neex ak li la naqari moo tax ñuy wax ni loolu noonu ab dogal la ab àtte la yoon la yoon nag bu amee dañ ciy jaar te yoon li nga xamante ni moom la tëral tukkee ci dogal boobu CEDEAO jël moom mooy ne kat gannaaw avril deux mille vingt et un ba léegi ëpp na juróom benn weer te biñ ñëwee ba ci wotey euh, fal euh, njiitu gox yee goxaa di maanaam élection locale yi euh, gisuñu ci parrainage ah nit ñi njortoon nañ na kat xëy na Sénégal état am dafa tënku ci li nga xam moom la CEDEAO jël comme dogal waaye kii di directeur général des élections wékku ci kii di premier ministre ministre de l' intérieur autant moi kook itam wekku ci président moom moo ñëw génneewaat dogal ne kat lii jëm ci wote jàmbur yi maanaam euh, député yi dañ ci dugalaat li nga xam moom mooy euh, euh, parrainage bi moom moo tax ñun ñu taxaw lànk loolu ah mu yamoog nag am yeneen ñaari kuréel yoo xamante ni ay lëkkatoo lañ benn bi moom mooy gëm sa bopp beneen bi moom mooy yeewi askan wi ñoom itam yëkkati seen kàddu jaarale ko ci yoon wow noonu moo tax waaye nag booy wax taxaw booy wax daw dëggee duñu xam kuy wax ndax euh, ñun ñu ngi lay invité ci FRAPP waaye. da ngay politique ndax euh, yaa nekkoon candidat Yewwi Askan Wi ci mairie Pikine Ouest. Mm, non mooy wax Daouda Gueye moom mooy wax. xam nga nun ma wa euh, déglu ma déglu ma rek euh, loolu itam day day day day jaxase xel yi euh, Guy Marius Sagna mi nga xam ne yéen a bokk FRAPP moom it foo gis Ousmane Sonko gis ko ci ginnaaw est-ce que seen discours bi discours lan la discours askan société civile wala discours politique. Babacar yow yaay xool ba xam nit ki ngay xool wala li nit ki di wax moom ngay moom ngay. xool ñun wax suñu kàddu suñuy wax. Ah. mosul soppeeku yaakaar naa ne ñun fi ñu taxawoon 2011. ah 2011 lu jiitu 2011 fi ñu taxawoon ba vingt 2022 bi foofu la ñu taxaw bu amee ñu soppeeku mooy ñi nga xamante ni amaana yoon wi ñu defandoo ak ñoom dañ àndoon ak ñun di xeex ci ay principe mujj wàcc principe yooyu noonu moo tax suñu discours du varié ma li jëm nag ci euh, bokk ci ay wote waaw nun frappe amaana jamono moo dox ba ñu woowee ay activiste ndaxte dafa nekk lu xew mais ñun mosuñoo jàppee suñu bopp ay activiste boo xoolee turu frappe ba front pour une révolution anti impérialiste populaire et panafricaine ñun dañoo taxaw bi nga xam moom moo ñu tax a mooy transformer la réalité sociale maanaam soppi dinga xamante ni moom la euh, réew mi suñu réew yi di doxee soppi li nga xamante ni moom la société bi di doxee moo tax ñu musuñoo dàq. musuñoo dàq n'est-ce pas donc taxaw toog foofu nga xam foofu la ñuy dogalee ngir mën a soppi soppi mbiri li ñu wuutale kay ak ñeneen yi moom mooy ñun dañ dul xaar woote ba woote ñuy yëkkati suñu kàddu di kii ndaxte yenn jafe-jafe yi nga xamante askan wi daf koy jànkonteel muy ñi ñuy euh, sàcc seen suuf mooy ñi ñuy sàcc seen euh, euh, seen payoor bañ leen a fay ñi xam dañ leen di jaay doole ñi nga xam dañ leen néew doole ak yoon ak yi nga xam dañ koy jàngal taxawaay bi lañ wax taxawaay bi lumu ñun taxawaay bi taxawaayu loolu la taxawaay boobu taxawaay boobu rek la ñun taxawaay waaye FRAPP nañu taxaw frap du parti politique FRAPP amul vocation FRAPP ci boppam laax amul vocation wu li nga xamante ni moom mooy euh, euh, jël pouvoir wala bokk ci élection waaye ay membre FRAPP te loolu mi ngi ci ay euh, statut FRAPP ay membre FRAPP am nañu liberté ñoom bu leen neexee concourir à des postes de responsabilité. mais euh, foofu la lëndëmaa yi féete parce que boo leen bokkee FRAPP amu leen option pour euh, concourir au pouvoir waaye membre FRAPP yi nekk ay candidats wala yenn saa ñu nekk directeur de campagne bu Ousmane Sonko ce qui a été le pour Guy Marius Sagna ci élection yële ñu weesu législative yi. Mhm. boobaa. fan lañ leen di féetale kon mën nañ leen jàppale ci kuje gi ndax yéen ñëpp ci kuje gi ngeen. fa euh, kuje gi ngeen dafa bokk ci kuréelu politique gu tudd yoonu askan wi. yoonu askan wi bokkoon ci lëkkatoo gu tuddoon ànd euh, nu mu tuddati waaye euh, ndawi askan wi. Mhm. ci biir loolu ci la jiite woon li nga xam moom campagne yu lii di ndawi askan wi ci législative yooyu noonu waaye li nga xamante ni moom moo ci am solo mooy FRAPP. dafa am ay charte ak ay statut yoo xamante ni ñoom ñoo ko euh, régir ci kaw loolu li ñuy xool moom mooy ndax kii nga xamante ni moom mooy membre FRAPP taxawaayam ak fu mu mënti nekk ak kàddu yu mu yëkkati ak fu mu mënti nekk ndax. mànkoo na ak li nga xamante ni ñu moom ci yéen est-ce que am na ñu bokk ci yéen ci FRAPP ñu féetee parti nguur gi. ndax am na bokk ci ñun euh, FRAPP peut-être ay sympathisants am na ay sympathisants ñoo xamante ni ñuy ñëw suñu ay rassemblement bari na bari na. biñ fi def xanaa non aux APE yooyu yëpp ñoom ay don Ibrahima seen dañ daan ñëw yaa ngi dégg ba ci euh, Babacar Gaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dañ daan ñëw suñu ay rassemblement ndaxte yaakaar naa ni li nga xamante ni moom mooy yëkkati ñëpp fédéré ñëpp moom mooy li nga xam mooy cause yi nga xamante ni moom la xeex li nga xamante ni moom mooy principe yi nga xamante ni moom la ñu moom moom la ñuy défendre te ku ñu joteel li ñu jotelee du lenn lu dul dañoo waroo ci ay ay ay principe loolu moom moo tax ma ne euh, loolu warawul dara ak suñu taxawaay ndaxte taxawaay bi benn la muy ci boor bi benn la muy ci bor bee benn la discours bi benn la mooy li ma lay wax ñun yamuñu rek ci taxaw di ŋàññi yamuñu rek ci taxaw di ŋàññi am na ñoo xamante ni xëy na loolu moom mooy seen option mais ñun dañoo bëgg a la réalité euh, n'est-ce pas donc sociale dañu bëgg a transformer également la réalité dans nos pays moom moo tax yamuñu rek ci ŋàññi bu ñu amee possibilité ñun nañuy ŋàññi Euh, taxaw fañ koy jooyante dañuy dem euh, taxaw fa waaye lépp tënku ci principe bi nga xamante ni moom moo ñu moom moo ñu boole. boo leen di xeexal ñi boo leen xeex li nga xamante ne moo di parrainage ci élection législative yi pourquoi ci lu yàgg jéemu leen koo xeex aussi. Euh, ci yeneen élection yi donte sax c'était pas appliqué aux partis politiques mais indépendants yi daa am li nga xamante ne sasoon nañ leen loolu aussi système de parrainage la surtout ci élection locale. lu ñu sasoon logique bu ñu sasoon euh, les indépendants bu ñu bëggeen bokk bëggoon bokk ci ab élection euh, présidentielle ak élection local daa am ay signature yi nga xamante ne dañ leen ko sasoon laataa ñoo bokk loolu loolu si forme parlementaire loolu xel mën na koo nangu ndaxte euh, parti politique bokkul ak xanaa candidature indépendante parce que parti politique boo xamante ni mi ngi def ay activité am yaa ngi dégg am ay yëngu yu muy def bokk ak koo xamante ni dafa ñëw rek il faut mu joxe ay garantie loolu mën nañ koo nangu waaye li nga xam moom lañ mënta nangu moom mooy tëral parrainage bi nga xamante ni ndëgg sërëx la boo xamante ni moom da koy lal moom Macky Sall ngir laata euh, walis maanaam au lieu muy def lii di euh, élection sélection lay nekk ndaxte loolu moom mu amoon ci présidentielle yi bi nga xamante ni dem nañ ci élection euh, kii parce que bu ñu wax naan euh, ñii euh, la wax ni maanaam candidat yi dafay bari ba mën na indi pëccëxoo ci ni ñu lootaabee organiser lii di élection yi loolu du wax boo xamante taxaw na ndaxte wote yi ñu génn nii yaakaar naa ne. loolu di proposé comme filtre kon yéen. ñetti junni parce que boo leen tegee dara ngeen teg dara. luñ bi nañ bàyyi askan wi ci boppam ñu filtre ñoom ñooy tànn ki ñuy voté ak ku dul voté élection yi ñu génn ñetti junni liste ak. téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ci amoon donte am na yoo xamante ni sax am na ci waaye itam yëfu nit la mënta nekk loo xamante ni day ñoŋ maanaam. malgré lu muy côté nguur gi ñi nga xamante ne peut-être du ñu am sax. sans démocratie démocratie côté à l'état des millions et des millions. démocratie dafa am njëg. te njëg boobu noonu yaakaar naa askan wi fay nañ ko mu tukkee ci. gàllankoor démocratie du anarchie du pëccëxoo bu ñu déedéet. du pëccëxoo. waaye yaakaar naa ne Sénégal am nañ doxal maanaam administration boo xamante ne wàññi na xarañteef dama lay jox rek xanaa niiral maanaam exemple ji tukkee ci wote génn nii di fal euh, njiitu gox yeeg goxaat yi dama ne la lu ëpp ñetti junniy liste ñoom ñoo ci nekkoon yu teg téeméer ak juróom fukk yu manqué benn waaye wote nañ ko ci jàmm balaa ngoon euh, lépp lépp noppi na. waaye xam nga loola wute na wute na ak élection législative ndax li muy doon ñetti junni ñetti junni yëpp daa wasaaroo ci réew mi euh, du liste yëpp moo nekk fépp waaye bii di falum député yi euh, liste yi daanaka euh, boo jëlee élection départementale yi xëy na ñëpp ay am liste lu ñuy wax euh, liste majoritaire. donc ah. bu liste yi bëree day jafeel yëf yi. de Babacar yaakaar naa ne élection législative yi ñu war a far jàmbur yi moo gën a yombati ndaxte li ko def moom mooy boo jàppee ni ci niveau national rek lay am déedéet am na ay liste yoo xamante ni. moom laa la wax liste départementale la am na liste moo tax ma ne la bu ñu mënee euh, euh, lootaa bi mbir yi man maanaam organiser ko ci euh, wote yoo xamante ni li ciy dem ëpp na ñetti junni ci ay lim ka maanaam ay liste yaakaar naa ne war nañ koo mën a def ci lii di élection de moo tax gis nga Babacar nañ dellu sax ci li nga xamante ne moom mooy daal maanaam principe bi moom mooy Sénégal moom moo d'accord ne moo nangu ne lii nga xam ay dogal la yu tukkee ci kuréel yi nga xam dafa tiim réew mi lu mel ne CEDEAO ak yeneen ak yeneen yooyu dafa ëpp doole suñu ay euh, li nga xamante ni mooy suñu ay atte bu ko defee bu CEDEAO jëlal dogal boobu noonu moom Macky Sall Sénégal ci boppam waruñoo bokk ci ñi nga xamante ne dañuy nasaxal lii di CEDEAO ndaxte CEDEAO kuréel la goo xam dañ ko war a dooleel te beneen bi itam mënul nangu CEDEAO euh, jël euh, dogal ne dañuy boddi Mali mu sukkandiku ci loolu te su digg wi dox suñu diggante ak Mali ba pare CEDEAO jël dogal ne lii nga xamante ni moom mooy parrainage nekkul loo xamante ni lu méngoo démocratie la dañ ko war a dindi jox ab ab Macky Sall euh, ak Sénégal juróom-benn weer ngir loolu noonu ñu jox leen ab rapport bi wane ne dindi nañu ko ñu gànt loolu noonu. bëgg ne kat dañuy woote su loolu yanul maanaam loolu yanul maanaam. li ngay wax ni dëgg moom moo tax nag euh, ñun ñu taxaw. yaakaar naa ne warul sax nekk maanaam ak ñi mu àndal. li CEDEAO di dogal dañ ci jël leen neex dogal euh, jëfee ko li leen arrangé wul ñu bàyyi ko loolu la rek. wax nag frenkulaayu na foofu noonu. Mm. mu ngi noonu mais euh, Daouda Gueye sànq yaa ngi wax ni askan week ay kaas ci buñ ko dee euh, misaal moo tax a jóg frapp seen kuréel googu yaak ñoom Guy Marius Sagna léeg-léeg ngeen songu tribunal magistrat yi démb ñoom mbootaayu magistrat yi def nañ conférence de presse nee na dootul may kenn di songi magistrat ci juge Euh, nu ngeen di réagir ci conférence de presse UMS union des magistrats démb. xam nga am ci méttitu xol ndaxte li yëpp euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore réew mi ñoom ñoo ñi ci tàbbal dem ba nga xamante ni dañ installé magistrature bi magistrat yi dans une forme d' insécurité morale. ndaxte euh, yoon justice dafa am solo ci ci réew ndaxte yaakaar naa ni ku sa bët xonq li tax ba nga xamante ni kenn du fajal sa bopp ba nga xamante ni mooy anarchie bi nga doon wax nii maanaam mbiicoo mbaaloo di am mooy ku nekk jàpp na ne boo amee lu la metti war nga mën a dem ci yoon mu fajal la ko bu fekkee dañ naa tuumaal loo xamante ni euh, ja euh, tegewul ci dara mën ngaa yaakaar ne yoon dina ñëw àtte euh, setal la waaye bu demee ba nga xamante nit ñi ngi am jiixi jaaxa jëm ci wàllu yoon yaakaar naa ñi nga xam ñoom ñu si njëkk gaañu moom mooy euh, yenn magistrat yi nga xamante ni ndax itam nag foo dem nag Babacar am na Maram Birane foo mënti dem nag euh, mën na am kuréel boo mënti dem am na Maram Birane muy ci jàngalekat yi muy ci saabalkat yi maanaam journaliste yi ba ci attekat yi di euh, di di nu mu tudd yi moom moo tax ñun bu ñuy wax dafa am fu ñu ko tek ay jaar-jaar yoo xamante ni am na suñu diggante ak magistrature bi ba nga xamante ni moom moo tax nit ñi peut-être dem ba euh, am benn jiixi jaaxa jàpp ne kat lii nga xamante ni yoon euh, dafa jeng euh, fii ci réew mi tëddeewul tëddaay njaa njaaxaanaay ndey ji seex waaye yoon woo xamante ni dafay nekk yoon woo xamante ni aliw am mag la ak aliw amul mag ak ak yu mel noonu loolu moom moo tax nag ñun ma ne méttitu xol lañ ci am ndaxte bu ñu sañoon ñi nga xam ne ñoom ñooy yi danañ leen ñàkk bàyyi leen seen bopp te magistrat yi ci boppam ñoom itam waxuma diw wala diw mais ñoom ñëpp ñu taxaw mat li ñu euh, doon ba nga xamante ni askan wi nañ am ci ñoom kóolute goo xamante kenn du am ci ñoom. mais yéen yéen yéen yéen yéen saay euh, yoon jël dogal bu fekkee ne. Euh, ça vous est ngeen naan rafetlu doxalinu yoon euh, yenn saay bu euh, bu safaan wi amee ngeen naan voilà yoon yoon dafa jeng est-ce que yéen aussi bëggu leen li nga xamante ne rek ça vous est favorable te àdduna bu mënu demee noonu bëri na lu jël yoon te même yoon jël na ay dogal yoo xamante ni dafa dal suñu kaw gisoo leen ñu yëkkati ci ay kàddu di ci wax musul am li nga xamante ni moom moo am mooy dañoo seetlu ne li nga xam moom kii nga xam moom mooy Macky sàll euh, la nga xam moom la doon jooytu ñu àndoon moom di a xeex atum 2000 huit ba deux mille douze xam nga yoon lañ wax. nga dugal nga dugal turu Macky Sall. foog nga ni. waaw magistrat yëpp ñooy toog rek Macky naan leen. Euh, joxoñ leen fii ngeen xool fii magistrat yi tamit am na ay gor ay doomu jàmbur lañ Serigne Bassirou Gueye moom ci la bokk mais du jël dogal waaw waaw mais mënoo mënoo wax ne Bassirou Gueye mënoo a euh, euh, ci magistrat la bokk léegi nag ñun bu ñuy wax ne yoon dafa jeng waxuñu magistrat yëpp a jooñ jeng mais parquet du dogal xam nga waxuñu yoon dafa jeng kay waaye am na mbir yu xew ci réew yi kii nga xam moom mooy procureur de la moom moo war a jóg jël dossier bi euh, nu mu tuddati jëm ko jëm ko lijjanti waaye dañuy gis ne kat moom euh, cawarte ak gaaw lay wone ci bu fekkante ni ku bokk euh, koo xam dañoo jàpp ne rek ci waxam wala ci taxawaayam àndul ak nguur gi waaye bu fekkee ñoo xamante ni dañoo nekk ci boori nguur gi mbir yi dafa yeex. comme ñan comme ñan comme ñan wala léeg-léeg sax ñu jox ñu misaal jox ñu ñaari misaal ñu waxtaan ci Babacar ci tënk Babacar. Hmm? kii ni njiitu réew mi ci boppam Macky moom lañ fal. deux 2012. waxtu bi sax jeex na mu def message à la nation euh, le 3 euh, le 3 avril 2000 euh, 2012. yëkkati ay kàddu yoo xamante moom xam na li nga xamante moom moo nekkoon mettitu xoolu Sénégal yi du ay tali loolu Ablaye Wade kenn mënu ko cee jàmm waaye état de droit ak impunité ak parparloo lañ buggoon mu jege fi te discours boobu loolu rek la fa wax waaye moom moo toogaat ab diir taxaw ne boo leen xamoon ñaata way ndare maanaam dossier laa jël sama coon ci lii teg ci Euh, dana leen jaaxal te loolu bu ko waxee itam ñun ñu gis ko gis gisatu ko ay yoon yoon yoon yoon yaakaar naa ne am na ñoo xamante jàpp nañ leen fii ci xaalis xaalis xaalis xaalis bu tilim mais moom moo ko téye hmm. yaa ngi dégg euh, kii di euh, nu mu tudd OFNAC ki ka jiite ñaata yoon la génn fii def nekkat moom liggéeyam def na ko jébbal na ko kii nga xamante ni moom mooy toppekat bi maanaam procureur de la de la république fan lay mujjee Babacar du mujjee fen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mën nañ ko ci indi ay niiral yoo xamante ni boo demee ci sénégalais yi ci bokk nga laaj leen lan mooy seen gisin ak seen yëg-yëg jëm ci li nga xam moom la yoon di doxee ci biir réew mi dañ naan la carrément yoon. Euh, dafa dafa misaal yi nga jox nag dëgg la te jàmbat gi mooy procureur mi ministre justice yilif kooka président yilif ko moom mooy jafe-jafe bi ci gis-gis ñu bëri jërëjëf daaw Gueye bu fra jërëjëf Georges Ziar Fati ñi mu àndal ñu ak jàmm. Babacar maa ngi lay delloo ziar di la jaalewaat bu baax euh, El Hadj Ndaté euh, ak euh, tous nos confrères de la radio Futur Média di leen nuyuwaat suñu téléspectateurs yéen a àndoon ak ñun 6h30 ñeneen ñi ñoo ñu dab ñeneen ñi ñu ngi soog a yegg si bu fekkee également yéen ki suñu plateforme yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen safo ak seen kóolute 8h jot ñaareelu pàcc bi xibaar yi lañ koy doore ci yaatal Ibou Diouf lañ ci àndal.